asalaamaaleykum gars yi nuyu na leen si ku nekk turam ak santam di la wax ne yow mi xam naa abonné woo sama page YouTube dina wax lu nga daw gaa dem abonné ji ah mooy Mouhamed Ndiaye 222 bii ngay gis voilà sama gars yi dem leen gaaw dem abonné ji sama page YouTube bi ñi xam ne jotagoo leen abonné boobaa xam ngeen ne championnat yi tey mu commencé su boobaa xam ngeen ne benn coupon dootu leen rawate yow mi xam ne abonné goo dawal gaa dem abonné sama page YouTube mooy Mouhamed Ndiaye 222 bu dee da nga nekk li nga xam ne moo di TikTok da ngay dugg sama compte TikTok Mouhamed Ndiaye 222 boo duggee compte TikTok bi lien bi def naa ko foofu mooy YouTube bi nga yóbbu ko yóbbu la directement si YouTube nga dem abonné bu fekkee ne amoo TikTok da ngay YouTube directement bind Mouhamed Ndiaye 222 boobu waa dañ la indil sama. gis ngeen sama photo boobu noonu laa def photo profil léegi su boobaa da ngay dugg abonné gratuitement pour coupon yi di mën a disponible si yow chaque jour dañ la jox coupon du jour. léegi nag sama gars yi yéen si des dañ leen abonné gaaw activé cloche notification bi te di seen vidéo yi di ko commentaire ngeen xaar léegi nag li tey championnat bi commencé sama gars yi tey vidéo bi loolu la woon te leen di xaar si commentaire yi noonu lañ gisee sama gars yi di beneen vidéo ba beneen yoon